amma baad ibadallah <coughs> mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ñu ngi seede ni moom dong moo yeyoo ci ñu koy jaamu di seede na yonent yàlla muhammad moom la yónni woon ngiree suñu mboolimi jaami yàlla ñu roy ko ci moom suñu borom yàlla moom ñu ngi leen di sant ngeen màggal ko ñu ngi leen di sant ngeen topp ko ci loolu rek la seen texe nekk ci àdduna ak ci alaxira gannaaw ba mbokk julit xam leen ne lii di guddeeg bëccëg lii di bis yi ak semaine yi <coughs> nekk na mbir boo xam ne daa gaaw lool ni muy jàlle rawatina ci mujjug jamono gi yonent bi sallallahu alayhi wa ni nit ñi daan dem bay dund at mu gaawee ci ñoom ne weer weer gaawee ci ñoom na semaine waaye mbokk bis yooyee li muy tegaloo at yooyee li muy tegaloo suñu boroom yàlla yemelewu ko daa am lum ca tànn màggal ko ba pare nag ni ku màggal la yàlla màggal day day wone ne ragal yàlla mi ngi sa biir xol looloo tax ba mbokk julit xam leen ne bokk na loolu yàlla màggal mooy bis bii ñuy dund tey mooy bis bii di bisu arafa nga xam ne mboolem julit yi nekk ci kaw suuf ñu te yàlla yombal ñu ngi daje ci benn place bu ñuy waa arafa loolee suñu borom yàlla subhanahu wa taala waat ci ab téeréem ni neene mi ngi waat ci asamaan yi ànde ki biddiwam mi ngi waat ca na nga xam ne mooy bis ba ñuy seede mi ngi waat ca aji seede ak bis ba ñu diggaate ki nga xam ne mooy abi hurayra radiallahu anhu daana wax ne shahid bi yàllay wax foofu mooy bisa juma mashhud bi yàllay wax mooy bisu arafa loolu nag mbokk mi ngi noonu moy bis bi yalla tan non matal ci suñu diine ji ba kérok omar ibn al-khattab ben yahud dajé mom nako man day jang na ci sen téré aya bo xane bu doon ci ñun yahud la wacc day dañ koy def bis fête bu mak mu ne ko aya bo ban aya la mu jangal ko aya bi suñu borom di wax naan al yawma akmaltu lakum dinakum ba fam jeexé te mooy yàlla ne bis ni ki tey matal naa seen diine mottali naa samay xéewal gërëm naa nii ngeen dunde nii diine lislaam nga xam ne lu nekkul woon diine jamono keroog dootul nekk diine ba ilaa yawmi diin doonte ne mbokk gannaaw loolu doomu aadama yi sos nañ gannaaw yonent bi loo xam ne xaw naa toll ne la yonent bi indi woon waaye mbokk diine mi ngi yem foofu ca moy la yàlla wàcce woon ci yeneen bi Omar ibnul Xataab ne ko ñun dey bis boobee xam nañ ko place ba xam nañ ko yàlla nga ko wàcce woon ci bisu àjjuma fekk yeneen bi alayhi salaam ma nga woon ca arafa loolee mu ne ko ñun àjjuma suñu feet la ca arafa it suñu feet la loolu moo tax ba mbokk jullit xam leen ne tey ñi ngi dund bis bu màgg boo xam ne bu amee balaa amati day yàgg ca mooy bisu arafa dëppoo ak bisu ajjuma mbokk arafa mook bisu tabaski ñooy bis yi gën a màgg ci at mi yépp ajjuma mooy bis bi gën a màgg ci semaine bi yépp loolu bu ñu dajee day nekk ngëneel ci biir ngëneel leer ci biir leer gannaaw loolu bisu ajjuma mooy bisu ñaan ca rawatina la nga xamee ne nii moom mooy mujjam ga bisu arafa mooy bisu waaye rawatina la nga xam ne mooy mujjam ga moo tax ba waa suñ demee ba julli tisbaar julli tàkkusaan la ca des mooy dañuy ñaan ba jant bi so naka noonu it lañ bëggoon yow bisu àjjuma nga lay gannaaw tàkkusaan nga def ko waxtu ñaan ba baa muy so mbokk jullit xam leen ne suñu boroom yàlla bokk ne xéewal gum defaloon xeet bi mooy bisu ajjuma bu màgg bi moo dëppoog ajug yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla benn aj la aj yàlla dëppale bisu arafa mu dëppoog bisu ajjuma muy ngëneel bu màgg bi nga xam ni moom la ñuy dund suñu bisub tey bi te mooy ajjuma joo xam ni dafa tombe ak la nga xam ne mooy arafa mbokk bisu arafa lu màgg la ca yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaan wax ne mboole mi aj makka mooy bisu arafa képp koo xam ne nii fekke na ca dara ak lu mu néew néewu ajam mat na koo xam ne fekke woo ca dara sa aj yépp yàqu na déewéene ci rekk loolu mbokk mooy suñu bisu tey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj gama aja woon woone bilaal na ko bilaal waxal nit ñi ñu déglu ma bi bilal waxee loolu mboolem ñi àndoon ak moom mi ngi noonu daa di koy wër déglu si ko salallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon mbooloo mu bëri lool mi ngi noonu mu ne leen ay yéen nit ñi jibril day moom a dikkal léegi mi ngi jóge ci boroomam nee na day suñu borom yàlla mi ngi leen di puukariwu ci kanamu malaaka yi naan malaaka yi xool leen sama jaam yi ñi nga jóge ca gox yu sori yaakaar sama njéggal ak sama yërmaande maa ngi leen di seede ne jéggal naa leen yërëm naa leen Omar ibnul Xataab jóg na ko ma yow mi yàlla yónni ndax loolu ñun rek ñoo ko yayoo mu ne déedéet yéen ak ñiy nar a ñëw ba ilaa yawmi diin ay yéen ba ko xam leen ne day lii nga xam ne mooy bisu Arafa bokk na loo xamee ni nii lu ci ab jullit war a gën a yaakaar mooy yàlla far turam goreel ko ci liste bi nga xam ne dañoo nar a dem sawara yal na yàlla boole ci suñuy tur loolee mbokk day am ci bisu Arafat looloo tax ba bu keroogee jullit ña fa daje bokk na la ñuy gën a ñaan yàlla mu jéggal leen yërëm leen waaye goral leen goral leen ci la nga xam ne mooy sawara am na kuñ daan tudde hakim ibnu hizam nga xam ne nekkoon na doomu bàjjen ci xadija soxna yonent bi salallahu alayhi wa sallam yàlla yaataloon na alalam bala waana dem makka day dajale ay jaam su ma san dem makka yóbbaale lu ma téeméeri jaam suñ demee ba takku san jot mu daal di woo jaam yépp waa arafaat yépp ñëw mu ne leen yéen ñépp goreel naa leen su ko defee mbooloo sahaaba ya ko waroon ñoom it daal di jooy ne ay yàlla sa jaam bii di hakim goreel na jaam ya yoroon ay yàlla yal nag ñu goreel ci sawara mbokk ñi mooy sahabatul kiram ñi àndoon ak yonent bi jihaad ànd ak yonent bi jox ko seeni bakkan ak seeni alal musuñoo nekk di bakku naan àjjana lañ jëm wala di dig kenn àjjana walla di dig benn mbooloo àjjana bal képp kenn ci ñoom la ko jaaxaloon mooy bakkanam bi nu muy def ak moom keroog bi muy taxaw ci kanamu boroomam moo tax ñoom ñépp ñu jooyandoo ay yàlla ñu nit yàlla na nga goreel suñuy bakkan ci li nga xamee ni nii moom mooy sawara ay yéen bokk julit ñi ngi dund bis bu màgg di la nga xame ne nii moom mooy bisu arafa suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam daañuy wax ni ñaan gi gën bu ñaam bu bu di ñaan mooy ñaan gu mu ñaan ci bisu arafa looloo tax ba sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu jiitee ajam ga dem na ca jàkka namira diite fa nit ñi tisbaar ak takusaan comme ni mu amee sànq comme ni ngeen ko seetaane seen télévision yi amir bi jiite at gi jiite na leen tisbaar ak takusaan ba mu paree nu mu def mooy daa di dem ca jabalu rahma daa di fay taxaw ca kaw giléemam ngir waa arafat yépp di ko gis mu yëkkati loo xam ne tedd ya sallallahu alayhi wa sallam takkusaan ba timis mi ngi toroxlu di ñaan yàlla di jéggulu yàlla même la nga xamee ni nii mooy buumu giléem gi mu yoroon bu waddee benn loxo bi da koy jëlee beneen loxo bi mi ngi jëm kaw asamaan sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a ragal ñépp yàlla gënoon a raak euh, yaakaar ñépp yàlla gënoon a sukkandiku ñépp ci yàlla mosul wax kenn mu sukkandiku ci moom mosul wax kenn mu dellu ci moom bal jaam bi jaami yàlla yi daawu leen tegtal lu dul ñu dellu ci yàlla yaakaar yàlla kese ragal yàlla kese noonu la nekk sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ba ba bi soo noonu la doon waxee it xam leen ñaan gi gën mooy ñaanu yow mu arafa waaye li gën a màgg li may wax man di ko ñaane mbokk mboolem yenent yi nga xam ne nii ñoom fi jiitu woon mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir mbokk lii ñaan la goo xam ne boo koy xool doo ca gis ñaan te mooy ñaan gi gën a màgg ci ñaan yi tey jii yéen waa sénégal da ngay gis benn waay boo xam ne daa am ngénte wala céet ñun li nga xam ne créé nañ ko muy ay géwélu juddu kii nga xam ne mooy géwélu juddoom bu ñëwee du nekk nan ko may ma déedéet da koy tiim rek di ko tagg sa bàyyi nii sa maam nii bu ko defee lam koy jox mooy gën a màgg fuuf ñaka xamul di ko wër naan ko may ñu may ñu suñu borom yàlla it naka noonu ñaan ko lu baax la lool bokk na la gën ci ñaan yi mooy nga ñaan yiwu àdduna yiwu alaxira bokku ne ci rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qina azaba nar way lolu moy ñaanu sakku amma ñaanu torxlu ñaanu wikku moy nga ne la ilaha illa allah ay yàlla ma ngi seede ken yoyowul ñu koy jaamu ku dul yow wahdahu mom kesse la sharika lah amul kenn kum bokkal lolu du ay malaakaam du ay yonentam kenn ku yàlla bokkool yeyoo ñu koy woo wala di ko yaakaar wala di sukkandiku ci moom la sharika la borom boobu lahul mulk mooy ki moom lépp moom moom asamaan ak ña nekk ci malaaka moom moom suuf ak di fi nekk ci nit ak jinne moom moom alal yi moom moom trésor yi moom moom ak wér moom moom ak richesse moom moom jàmm moom moom aafiya lahul mulk lépp lu mu mën a doon yàlla moo ko moom ca it waluhul hamd moo moom cant yi amul benn jaam buy am dara lu dul xéewal la ko ko yàlla xéewalal wér gi yaram lahul hamd alal ji lahul hamd doom yi lahul hamd aafiya lahul hamd jàmmi àdduna ak alaxira lahul hamd mboolem xiiwal boo xamee ne nekk na ci jaam yi lahul hamd xiiwal la goo xam ne mi ngi dellu ci yàlla jalla wa ala gannaaw ba nga ne wa huwa ala kulli cheyin qadir yàlla moomu moo am kattan ci lépp lu mën a doon looloo taxit ba yow jaam bi lépp lu la të lépp loo xam ne jaaxal na la lottu nga ca xamal ne am nga borom boo xam ne wa huwa ala kulli shay'in qadir lépp mooy am ki ci am kattan ci saafara la ci wërsëgal la ci musal la ci texeel la ci alak la ci lu mën a doon wa huwa ala kulli shay'in qadir looloo tax ba jaam bi loolu da koy yóbbu mu yaakaar yàlla sukkandiku ci yàlla dellu ci yàlla mbokk lii mooy ñaan gi gën a mag gu ñuy war a ñaan ci bisu tey bi di ñaan gu boole jublu ci yàlla yaakaar ko waaye ragal ko gannaaw ba xam leen ne mbokk yaakaaru yàlla daa am lu koy dëggal yaakaaru yàlla du xol ak làmmiñ kese waaye suñu borom mu ne إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله suñu borom mu ne ñi ma yaakaar samay jaam dëgg mooy ñi nga xam ne gëm nañ gëm gu sell gàddaay nañu ci yoonu yàlla jihaad nañ ci yoonu yàlla borom bi mu ne ñii day yaakaar nañ sama yërmande su ko defee nga la waay su dee ne gàddaayoo comme ne sahaaba ya gàddaayoon jihaatoo comme na saxaaba yi jihaatoon nga la way xamal ne am na lu màgg loola de se mooy su dee da yaakaar yàlla teral la àdduna ak àllaaxira yaakaar googu dëggal ko noo koy dëggalee solal sa tànk nga jàng diine yàlla ji góor ak jigéen ba xam ko taxaw ci farata yi sa kemtaleel kattan bàyyi xaraam ya sa kemtaleel kattan ku mel nii moo yaakaar yërmande yàlla soo ragalee yàlla musul la ci sawara loolee koy dëggal mooy xamal lépp lu yàlla tere xeex ak sa bakkan bii ba tere ko ko ku mel nii moo dëggal nam ragale la nga xamee ne nii moom mooy sawara gannaaw loolu mbokk julit xam leen ne bis bii day suñ borom yàlla da koo séddale séddale ne lenn ci ay jaamam woo leen ñu daje ca arafat fa lilahi lhamd tey jii da ngay gis ne ñi ngi estimé julit ñu ci ay un milliard et demi de milliard waaye benn million lañ jàpp ne ñoom lañu may ñu aju ji makka waaw ñi ci des nag ñi ci des suñu borom yàlla jagleel leen benn jaamu yàlla goo xam ne bu la rëccee ren ngalawaay diwen yàlla na la fi yàlla bàyyi ba boñ laa rëccati te mooy wóor bi su arafat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nam jagleel leen waa arafa yàlla baal leen noonu it la yonent bi alayhi salaam waxe ne ki wóor bi su arafa yàlla dana ko baala bàkkaar yi at mii mu nga xam ne moom lay dund ak bakkaar yi at mii nga xam ne ci la jëm boroom xam-xam yi bokk na ci lu ñuy wax naan lu tax at mii nga jëm yow dafa goccee bakkaar nu ñuy wax yàlla baal na la boroom xam-xam yi ne benn yàlla subhanahu wa taala dana la aar ba bakkaar boo cay nar a def njuum tey tax ca bakkaar boo defit dana la wër wërsëgal nga tuub ca mbokk jullit xam leen ne tuub yàlla moo koy mayee ko ko neex thumma taaba alayhim li yatuubu bu la seytaane mën a mukk nga ne naa njaaloo suma ma paree tuub naa sàcc suma ma paree tuub laa wallahi tuub ci yàlla lay jógee moo la koy baaxee looloo tax borom xam-xam yi ne wóor yow mu arafa day tax ba yàlla baaxe la bakkaar yi nga defoon ci at mi mu dëppale la ak tuub gu sell nga tuub mu baal la ko même année bii di ñëw yàlla dana la dëppalee aar la rëcc rëcc ya yàlla may la nga tuub yàlla bal la ko kon ñu góor góorlu ci loolu mbokk jurit ki nga xam ne koor gi rëcc na la ngalawaay askar yi rëccu la ca xam leen ne waxtu wi ñu toll ba baa jant bi di sonag mooy fa ca gënati ngalawaay nañ ci góor góorgóorlu suñuy kemtalaayal kàttan lu ngeen man ci njàngum alxuraan def leen ko lu ngeen man ci julli ci yonent bi alayhi def leen ko rawatina même bu dul arafat bisu àjjuma bi bisu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa la lu ngeen man ci génn ab sarax def leen ko lu ngeen man ci baril wax lu baax ak def lu baax ci mbokk yi ak dëkkandoo yi ngalawaay def leen ko baril lool zikrullah amul doomu aadama bi lenn lu ko gën a musal ci mbugulu yàlla lu mel zikrullah zikrullah boobee la ca gën moy takbirat yi nga xamé ni nii lu bari ci borom xam-xam yi sax dañu ne mi ngi commencé ci la nga xamé ni nii moom mooy subak bi nga fi nga julé fajar ci yow mu arafa lañu sunnal ñuko doon yëkkati sax hatta ci jakkay اللهم allahuma am خامني ني داني ne nii dañu jàpp ne bisu tabaski bi lay doon gannaaw tisbaar waaye ñu baril ko الله اكبر wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilah ilhamd donte ne lii lépp ci ñaan yi lii lépp ci askar yi ak salatu ala nabi bul fàtte nag la nga xam ne wax nañ la ko sànq te yenent bi alayhi salaam tànn ko nee na la gën ci lu doomu aadama bi di ñaani bisu arafa mooy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shayin qadir ay yéen mbokk julit bisu arafa yàlla def na ko muy ayit ñeel waa arafaat def ko muy ayit ñeel ñi teewlu arafaat looloo tax buñ demee ba ca suba ga yàlla day fay julit ni ñu daldi wane nag seen mbégte su dee ne waa màkka ya armal ya ñu soloon suba lañ koy summi suba lañuy dem wër kaaba ga daal di mën a ànd même ko àndoon ak sa soxna sax man ngeen a fanaan loolee ñu delluwaat ci vie normale xanaa lu dul rek toog di sànni ay jamaraat waaye yooyu mi demul arafa tey jii yaa ngi ko def bisu wóor waaye xamal ne suba day nekk su mbégte yàlla may ñu ñu rend ci suñuy xar daal di ci wane la nga xamee ne nii mooy bàkk ga ñuy bàkk yàlla jalla wa moo tax ba rasul sallallahu alayhi wa sallam heure bu masaan xëy bisu tabaski da daan def du lekk dara ba baa mu dem bu jullee ba pare rendi am xaram dooga ñëw nag la muy jëkk a lekk jóge ca la nga xamee ni nii mooy tabaski ba su ko defee mbokk julit am na loo xam ne nii laa shakk yàlla nattoowaat nañu ko te mooy julit ñi rawatina suñu réew wuute nañu ci nañ nara a dunde it am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne suba mooy bisu iid am na ñu jàpp ne dimanche mooy bisu iid lan ca daan wax ñun naka jekk mooy ngalla waaye la nga ca jàpp ne lii mooy dëgg jàppal loolu bul par parloo bul xool kenn lu dul ngërëmal yàlla soo xisee ba jàpp ne lii mooy ngërëmal yàlla defal loolu gannaaw ba nag nga ñaan yàlla boole nangul ñëpp looloo tax ñun dey fii suba insha allah ci 9 heures daañ fi taxawal jullik tabaski di ñaan it képp koo xam ne jàpp ne ne moom suba mooy bisu fukkeel na xam ne julli gi moom suba la amma rendi xar yi moom mën naa dem ba ñetti fan gannaaw tabaski bu la neexee rek julil suba bàyyi ba gannaaw suba ba gannaaw wàcc suba yaa xam nga doo ko rendi waaye julli ji moom suba la loolee kon ku koy def nga bàyyi ci xel loolu mi ngi noonu heure boo xamee ne nii yaa ngi jóg di julli si nga xam ne yaa ngi def la nga xam ne nii lu màgg la lu ñu yaakaar lool suñu borom yàlla subhanahu wa taala di ci gàtt ngaa nim ñuy dajale bi su iid bu ñu dajeeg moom yowmal qiyaama ba mu daje lañu mu daal di ñuy defal bi said teqalee ñu yóbbu ñu la nga xam ne mooy ci àddina yu kawe ya lii mbokk mooy li nga xamee ne nii incha allah moom la ñuy xaar di ñaan yàlla mi nga xamee ne nii moom moom ay jaamam ca moom xoli jaam yi lépp loo xam ne dañ caa juyoo ci ay jëf yàlla bu mu yegg bay juuyale suñuy xol yàlla na yàlla subhanahu wa taala déppee la ñu ak ngërëmam yàlla na yàlla subhanahu wa taala déppee la ñu ak la nga xam ne mooy ak sellalam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمة برحمتك من الراشدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد